ñëw ngir fekk lañ si ziyaare bi dañ lay tatagal dañ lay gatandu dañ lay ñaanal yàlla defal ñu liñ ñu xamee nii mooy jàmm macha allah duñu guddal waaye ñun sun maamala jab laa ñes les grands dafa téye jaasi jihaat jihaat ak maba jaxu ànd ak ànd ak jihaat paate baajaan Dia Songo nekk xaadi yi mooy juge yoo xam ne juge bu maandu la di ko teg ci yoon Maam El Hadj Abdoulaye Niass tabaarakallaahu rawale diineem ak tariqaam ak xeexal li nga xam ne mooy askanu Sénégal tax mu exilé boppam dem Gambie am na fukki at foofa lay déparé dem fees Maam El Hadj Abdoulaye Niass moomu ne ku muy sa maam wallaahi doo ragal ku muy sa maam doo xool déglu pression yi mm. kenn du la mën a jënd ndax ñu ñun fii kër ak Sowetaas la maam Xalifa waxoon na ne sama kër gi fii la daan woyee yonent Yàlla Muhammad fii la ko wax loo xam ne kenn waxu ko ko fii la ko waxee ne ko yow yaay ki nga xam ne yaa sauvé univers bi mu taxatoo nag yow yonent Yàlla Muhammad ñëpp ala ko nañ mu ne ko أنت للكرب كاشف ومغيث إن أتدنا البأساء والضراء دكا جوخن أنت دمير مخاطب ما خليفة دو حاج محمد مومو من سما كير جي كيب كو في دغو اديو جو خام يالا فاجنا من كو في ام نياخاري نيو في دا كير جو خام ني يونس يالا محمد فران دغو سيدي احمد يالا فران دغو ما شاء الله كون ني نغي تاتغال دي لا دي لا دي لا واخ بيفني سي سا كير سي ساي سوبي si say am di jàmm si ñoo xam ne tabaarakallaahu dara ñoru leen lu réew mi ñun lew nañu seen réew mi am jàmm rek moo ñor réew mu tegu si yoon rek moo ñu ñor réew mi jub rek moo réew mi nekk réew moo xam ne lépp luñ am li fiy génnee waa réew mi jëriñoo ko loolu waral tabaarakallaahu ñu roy sunu maam Alaaji Abdoulaye Niass rek combat rek combat combat noonu la doon xeex ak tubaab di colonialiste yi ba amoon na ay jam yo xamne tubab lañ mu tubal leen tuddee len fatou tubab ko ko rajab lay Niass moy maami sang bi moy maami khalifa bi kon bo ñewé dañ la xamal ñam am la am fayda dara fukku len ak ragal yalla jaamu yàlla te nangoo liggéey lii la lii mooy kon kaddu yi tabarakallahu famille baa fi ñu la présenté ndax ñëpp ñëw ko koo tuddul waaye boo leen kër El Hadj كر مام خليفة الحاج محمد مولم دومم لك دك سكر بالاج مدام كل حاج بابا كر كل حاج عمر كل حاج إبراهيم كل حاج علي يوم يبن في مولم فبي على جبل يبن في تبارك الله أبتالي بي سبي أم دي جامو يبن في تبارك الله كون لي مو نيكون كادو ني نيك خليفه بي لا بورت بارول خليفه تي واخ ميغا خا ما شاء الله ñu ngi leen di leen sant di jéggalu nag di jéggalu di jéggalu waaye nag buñ sañoon tabarakallahu ah du demee nii waaye nag eh, eh, li alquran wa kullu shay'in indahu bi miqdar wa kullu shay'in indahu bi miqdar lu nekk rek am na fu ko nu ko yàlla dogalee ak fa mu koy dogalee kon ñu ngi sant yàlla ci dogalam tabarakallahu ndax ay jullit lañ te jullit day nangu dogal ñu ngi leen gërëm di leen sant di ñu jox Cheikh Ahmed Tidiane bu noppee nag tabarakallahu ñu jox ki nga xam ñooy sa délégation ñu lim ko boo waxee pare ki nga xam ne moo fi toogal al xalifa mu am mu delloo la ñaanal la yàlla muy le porte parole Cheikh Ahmad Ababacar xalifatu xaasi Mouhamad fal yatafadal mashkuran Cheikh. ñu dégg noonu

Califera del Laura de Serra. Aí, Porto Gaio, Porto Soror do Laura de Serra. Banau, Calif Serra del Laura de Serra. Aí, Jamujito, Momak Laura de Serra. Musun Waidu. Musun Waidu. Di, di, di Kilifa. Waaye di ko xam ne mboolem kàddu kër gi dañ koo teg ba teg ko ci loxoom. Kon moom bu waxee yóbbaale la ñëpp. président Ousmane ñu ngi lay ñaanal sa kër saal bii nga toog neeku xalifa bi Hadji Mouhamed Niass la woon di wër Sidi Lamine Niass bi nga xam ne daa dëkk génn di xeex gàll Sénégal ba dugg biir bàmmeel yaakaar naa loolu suñuy baay ak suñuy maam ci lañ nekkoon ñun ñu jub fukk nag bii daa yóbbu beneen bi ci des mooy chaque jour président Ousmane Sonko dafa am lu muy wax ñu fàttali ko nit ñi bëggul ñëw kër sëriñ si wala kër sëriñ yi di fa wax lu jëm ci wàllu politique ziyaara moo ku fi indi feddali kóllëreem digganteem ak lew lañu seen comme ni mu koy defee yeneen këru diine yëpp am na ñoo xam ne nag seen ak cofeel kenn mënu leen a téye waaye moom bëgg-bëggam li tax mu yéexoon a wàcc mooy bu xale yi bàyyiwut yuuxoo bi ñuy yuuxoo ci buntu kër xalifa bi du ma wàcc kon kooku فتبارك الله لب لوني ليغي دا فا نييو بور فدال نيوكو واي لب سوني مامي نيكون دا فا داكو داكو نييو بور سوغال كو بريزيدان عثمان لي لاي لي لاي خاماتي لاكو ييغال موي لاو ناني سين غي اي سوبر nga fam لاو ناني سين غي اي سوبر nga fam لاو نا نك با ميتي عبدالله واد دي ندو واتي نغو دي ديف 3 ماندا محمد ابراهيم دي تاو الحاج ابراهيم نياس مو تخاو في ne ala Abdoulaye Wade dina wàcc réew mi ndax wàcc réew mi mooy jàmmi Sénégal troisième mandat bëgguñ ko fi loolu ñu seen boobu moo taxawaat tey jii ne ànduñ ci injustice ànduñ ci jaay doole ànduñ ci leneen guñ nag waaye dañuy wax li nga xam ne mi ngi xew ci réew mi te buñ ko waxee wut fii danañu laaj lu tax waxee wuñ ko foofu te jamono jii nag dóore bi bari na xoqatal bi bari na ñaan yooyu moo ko fi indi ak garanti yooyu ak seen i barkeem maam papa ngeen ñaanal ko ko garantel ñu ko incha allah li rek lañ soxla ci moom jërë ngeen jëf. moom ngay dégg wala ki koy présenté. Cheikh sa kado yi wax ko ko. taxaw na war na bàyyi waaw jox ko micro bi waaw waaw. waa mbooloo mi ñu dégloo kiy wax ci président Ousmane jox kàddu gi pour mu wax muy Serigne Cheikh Thioro Mbacké di setu Xaadimu Rasuul suñ maam Serigne Touba lim def nag wajaba war na ndax bu ñëwee kër xalifatul Haaji Mouhamad Niass jox ku sant Mbacké mu wax. kon loolu dëgg-dëgg doy na doy na kéemaan ñu déglu Serigne Cheikh Thioro Mbacké mu wax. comme ni ko Serigne Sia waxee rek président Ousmane Sonko rek kër diine yi fu ñu dem discours bi faral di waxee mooy ñëw ngir politique moom la ñëw ngir sàmm ñaan dama fay ñëw ngir xam ne sa bopp fii nag tànk yi ko xoral indi bëri na bi ku ci xamoon na digganteem ak Sidi Lamine Niass mu nekkoon doom ci mu nekkoon rakk ci moom mu nekkoon mu fonk lool bi muy nekk ci tournée européen boobu muy 2018 jàpp 2019 déggante woon ak Sidi ba rek mu ñëwee Sénégal yow laay dëkk seet si ba Sidi jàppoon ko suñu borom dogal li dogal kon ko kóllëre boobu ziar na mu ñëwaat ci kër gi benn bi ci topp ko ci nek gis na ci jabon fi ko nek taxaway mu may taxaw lu jëm ci wàllu baax moom kenn ko ci mën jabon maam xarit te japp na ne kon mu ñëw fi jox ma kaddu wax du nek ci bet kenn ndax ku ci nek xamoon na maam xarit ak cheikh Amadou Bamba ila jaxoon su mu ñëwoon kenn bi baax ki bu wacc bi ligé tam Serigne Touba dafa digaloon ci bakki bi maam si Anta ñëw jaare ci nek gis na ci bakki bi waaye moo waaye maam xarit kon jàpp naa ne président Ousmane Sonko njabootu diine jox nañ mhm. bu baax a baax a baax. incha allah ñun nit diine boo gisee ñu gis jàpp ne buñ ko war a jox ñu nañ moom fi mu tëdd loolu bi ñuy lancé mouvement doomi daara yi gis nañ nit diine dayoo wuti mouvement bi loolu jàpp naa ne jort bu rafet rafet lañ kon président Ousmane Sonko mi ngi fi ñëw di sàkku ñaan bu baax a baax a baax du ñëw kër benn kilifa diin nag di fa wut péete ci politique mhm. ndax xam nañ ni fii moom bu fi nekk ndaje seex war di muy njaaxaan na tey ngeen yilifi waa kër Pastef bi noonu ngeen yilifi waa APR yi noonu ngeen yilifi waa réew mi waaye nag na mu ñëw xamal a ko ànd bu sañoon de lépp luy ne kon bu ñëwee fii day sàkkuwaat ñaan bu baax a baax Serigne Cheikh mii nag ñu leen a dénkaat bu baax te xam ne mi ngi koy taxaw mi koy féete foo xam ne ñu bëri féete ak njaboot gi yëpp bu ñu limee seen mooy lim yëpp gis nañ ne parti bi jaral na ko lu ne ñu ngi ñaan yàlla a tas sa yaakaar xam ne gor boo jàppee président Sonko bu jàpp keneen mm-hmm. ñun ñi ko xam ne xam nañ fi a ñun ñooy doomu daara bi ko njëkk jàppale mm-hmm. mais bokk nañ ci doomu daara yi ko njëkk jàppale gis nañ fi ñuy teg wax naa ko waxati kon sëñ bi ñu ngi sant ñu ñaanal baax a baax a baax a baax di sant bu baax di gërëm kàddu gi préparé bu moo sam xaw ma ñett waaye daal kàddu yi lu mu dugg lay lay def ndax gis nañ ñu ñu teeroo yéen ñu taxawale te gis nañ mbooloo bi ku ñëw wóorul kenn xam ne kii lañ ko siyaar asalaamaaleykum wa rahmatulah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Serigne Cheikh Ahmed di ko ziyaara di ko sargal di ko ndokkeel ci bés bi waaye it di jël bi teg ci loxoom nuyool ñu mboolem njaboot di nuyu suñu baay ji toog fii nga xam ne defe naa suñoo teg tànk fii ci kër gi te fekkuñu ko fii mu dalal ñu déglu ñu waxtaan ak ñun di am mbégte ci gisewaat di nuyu kilifa yi ci toog yëpp nag mënuñoo lim ñëpp waaye képp ku fi teew rek ci ay kilifa ci njabootu maam Khalifa ñu ngi lay nuyu képp ku eh, fi teew ci kilifa ci njabootu maam Abdoulaye Niass ñu ngi lay nuyu di nuyu it ñi nga xam ne dañ leen fi fekk te ñu bokk suñu njaboot ci wàllu politique xam ñi nga ne dañoo yor ndomb tànk ci parti bi te sëñ Diagne mii teewal leen fi ndax dafa sori moo xamit ñi nga xam ne yoruñu ndomb tànk waaye taxawee ci liggéey bi taxaw boo xam ne àdduna yëpp gis nañ ko te moom ñu koy lim sëñ Cheikh Tidiane Niass mi jàkkaarloog man di am mbégte teew fii nag ndax eh, ay fani fan ci gannaaw bi may jotee carton d'invitation bi ci laa woote ne dinaa ñëw bu soobee yàlla

ñu waxtaan ci lañu dëppoo ni nañu bàyyi ba mu xaw a gën a dal ñu joog a ñëw ngoon si ñëw ziyaara ndax ñëwoon nañu ànd ak coono eh, te it ëpp ci samay àndandoo yegg seeguñu woon ñoom ñu nga Casamance daanaka fi mu ne nii tey la ñu xëyee Casamance ñëw xaat ñu daj fii kaw la mm-hmm. muy ñi ngeen gis sama sécurité bi yëpp. ñu ne kon ku demee na noonu nañu bàyyi ba ngoon si ñu doxantu ndànk ñëw ziyaara kon ñu ngi am mbégte fii ci ziyaara bi di ñaan yàlla lépp lu ay mbébét lépp lu waay ñaan lépp luñ doon jublu ci ziyaara bi yal na ko yàlla nangu ci barkeb borom bi yàlla na ñu yàlla may lu ëpp sax suñuy jot sama digganteeg kër gi nag mu ngi commencé yàgg ndax defe naa musuma dugg Kaolack te teguma tànk fii ñëw ziyaara si te musuma fee ñëwit ñu woon ma leneen bu dul kanam gu leer yaatal ubbeeku waaye mosuma fee ñëw te joxuñu ma cëru doom ci kër gi. Mhm. loolu nag moo tax ñu am sañ-sañu ñëw saa suñ ko bëggee ñu ciy gërëm kilifa yëpp nag ndax bu doon dañoo ñëw fekk fi safaan bi ah amaana dinañ ñëw de dinañ ñëwaat waaye du ñuy seet seetaat ko mhm. lii sëñ Cheikh Thioro Mbacké wax léegi mooy li am nun dañoo nekk leneen politique doog ñëw ndax ñun ñëpp dañoo am gëm-gëm ay jullit lañu hmm. politique sax daanaka lu ñu dab la waaye dañu dañoo judd nekk jullit hmm. te gëm naa ni moom la ñuy yóbbaale it soobee yàlla moo tax lépp lu ñuy def rek dañ ciy seet lan moo ci orma ak lan moo ci lu dëppoo lu xel waaye lu charte it mun a nangu ci diine moo tax bi ñu dooree ba léegi li mu wax da koo fàttali rek dañoo teel a wax ni ñun politique wuñu diine ji ku xamul diine rek moo koy fonto ku xamul diine mooy jàpp ni lu ñu mun a fooye la di ko jëfandikoo ci loo xam ne àndul ak gëm-gëm ngir rek ay poñetu àjjuna yu wër waaye dara jaru ko loolu moo tax biñ ci duggee lañu ne ñun politique wuñu diine gi suñu nee politique diine gi nag mooy suñuy kilifa diine ñun ñoo leen war a njëkk jàppale ba duñ leen jamee lenn li ñun ñoo leen war a njëkk a jàppale ba duñ leen jamee lenn li mooy moyetu di leen essayer defloo wala di leen essayer waxloo waaye di leen essayer jëfëndiko ci lo xamné ne mën na tax lenn ci nit ñi bët bu ñu leen xoole woon wàññeeku lolu ñun ñoo ci war a jëkk ak motax suñu ñëwé ci këru diiné yalla dafa def réew mi fay doxé ñaari tank ñi nga xamné di tubaab di wax walu temporaire wala ñu mën ko wax walu zahir ñi nga xam ne ci loolu la ñuy yëngu mooy ñëpp ñi nga xam ne ñi nga ci mbirum état wala politique wala yu mel noonu ci kilifteef laa wax de réew mi dafa yëngoo ñaari tànk beneen tànk bi nag mooy ñi nga xam ne ñoo ŋànk diine gi te yàlla teg leen fi ñaar yooyu faw rek ñuy jokkoo di jëflante di demlante di waxtaan waaye ci dëgg rek ci dëgg ñaar yooyu ñuy xamante looloo tax ku yëngatu ci li ñuy lëng yëngatu ba yàlla andi la fii nga ne bu dee démb ba ngay door kenn xamu la nga doon sol sa dàll dem seeti kilifa diine yi waxtaan ak ñoom ngir ñu xam la nga xam leen rawatina tey nag boo demee ba bu ñuy lim ci fa ngay yëngatu mu ñu lim ñaar te boolewuñ la ci loolu yàllaa ko def kon dafay jaadu ñu gën a dëgëralaat suñu diggante ak beneen tànk bi nga xam ne bu manqué réew mu amaana du dem looloo tax ñuy ñëw seet si kilifa diine yi ñaareel bi mooy ñëw dénk leen suñu bopp sàkku ñaan ndax am nañu sañ-sañ boobu nag waaye du lenn loo xam ne dañoo ñëw pour wax war génne mandarga naan si kilifa diine gi ñun la àndal wala ñëw ut si ab kàddu buy jib bu ñu mën a ne ah kilifa gii leen ci li mu wax li ñu mooy sonk la wala diw la déedéet du suñu du suñu cër ndax seen njaboot gi nun am na lu ñu ci am Mm-hmm. moom lépp. am na luñ ci am. moom lépp lépp yaa ko am naa njort nag ni kenn ëppale wuñ ci. yaa waaye am na luñ ci am. waaye am na lu ci keneen am. déedéet am ci leneen. loolu ci wàllu politique la. loolu. loolu ci wàllu politique waaye nag boo dajalee li kaamil yépp ci loolu yéen a ko am yéen. ku ci bokk ci kii ak ci kële yëpp. yéen boole ñooñu muy seen njaboot te waruñoo fexe ba njaboot googu am lu ñagas seen diggante loo xam ne day jóge ci manipulation politique. Mhm. moo tax tànk yi ñu fi andi du tànk politique léeg-léeg sax dañuy hésité lu bëri balaa ñuy ñëw mhm. ndax xam ngeen lii ngeen gis ci buntu kër gi. sàkkuwuma ko yónneewuma ko waaye yàllaa ko tuddee noonu ay armeel sax su ma fa duggoon fekkee fu ñuy robe balaa may génn di am mënuma ci dara yuy yuy sàkku nag seen compréhension ndax ku ñu comprendre rek di nga dafa ñëw kër gi di fi politique fekk loolu sàkkuwuñu ko suñu sañoon dañuy dox ci loo xam ne ci sirru lay doom ñoom dugg def li ñuy def dem suñu kon këru diine tam këru ñëpp la loolu yàllaa ko def ndax kilifa diine ñëpp am cër ci moom ñi mu bokkal diine bokkal bokk ak ñoom deret mën naa ne ñoom am nañu ñett wala ñeenti cër ci ñoom waaye keneen ku ne am nga ba ci ñu bokkalul diine sax am nañ cër ci nitu diine mooy cëru réew mi ñu bokk te ñoom ñu fiy kilif moo tax ñuy daral xelu ñi fi wax ñëpp tey jii de gannaaw yàlla gannaaw yàlla gisuma lu ñu mënoon tere ñëw fii ci kër gi di suñu kër te kenn ëppalewuñu fi ñëw ziyaara ci jàmm ak dal ak teggin delluwaat ci jàmm ak dal ak teggi gisuñu suñu bëggoon a dem julli ji ci jàkka ja ci jumaa ja gannaaw yàlla gisuñu du ko mënoon a tere ndax nag ñu tere ma kër gi moo gën a yomb ñu tere ma jumaa ji ndax wa anna al masajida lillaahi jumaa ji moom donte maa ko ci sama poos tabax ko waaye bis bu taxawee appelé wu ma ci beneen julit bu ñëw ci teggin ak dal jul pour julli rek dem yoon kon loolu ñu wax ko kilifa gi ni ñëw gi mënutoon a ñàkk ndax bés bi jar na ko kër gi jar na ko kilifa yi ngeen doom jar nañ ko waaye nag rawatina bu ñu yàlla booleeg ci njaboot bi ay nit ñoo xam ne gëm naa ni fu ma daanoo ñu daanu sëñ Cheikh mii jiite koy séré ci kanamu ay mbokam gor la garmi la ku neex andal té lolu li ñu yëngatu lu jafé la léeg gor la garmi la ku neex andal té lu mu gis luy défar ma nga ca lu mu gis luy yaq mu mu teel ci at té ñu melni mom bari nañu magam nga ngi ñi tok ak ñi leen ñëpp nag kon Ousmane ñi di Arabie Saoudite waaw yi di Arabie Saoudite ak ñeneen ak ñeneen kon kóllëre gi ma gi ma ma am ak lew na gisuma gannaaw yàlla lu ko mën a dog te yàlla du dog lu baax kon du dog bu soobee yàlla kóllëre googu moo tax ñu ñëw tey di jéggalu ci guddal kàddu gi ndax xam nañ ni bës bi xat na te xadara bi léegi mu door wala door na moo tax ñu ne rek nañ ko tënk foofu di dellu gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaan yàlla mu may ñëw yu téwat yu téwat ay ati ati at bëss bu ni mel yalla may ñu luñ fi ñaan rek mu doon lu nang yeen yi di suñu kilifa yalla ni fi yalla bàyyi balaa déwén ci heure bi yàlla nga jël rew ci barka alquran di ziar nak bala ma koy fatte sen Cheikh Omar dias mais nga xam defena it defe naa sama diggante te muy dom ci kër gi ñu koy gërëm bu baax ci assalamu alaykum wa rahmatulah jërëjëf présentation bi ñu jox porte-parole bi porte-parole de la Xarala Ñaseen Alxaaji Ahmed Baba la porte-parole bu Léona Ñaseen yor kàddu xalifa voilà mbokk yi ñoo ko déggandoo léegi ñu déglu ki nga xamante ne moom mooy mooy porte-parole xalif bi mu Cheikh Ahmed Aboubacar moom mu wax ci turu kër gi salaamaaleykum mbokk jullit yi fi teew Cheikh Ahmad Aboubacar le porte parole xalifa mu ne mi ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mi ngi leen di tatagal bu baax a baax. waaye nuyoo bi mu leen nuyoo kenn ku nekk mi ngi lay nuyu si sa tur ak sa sant. ak li mu lépp ci barke. mu ne nuyoo boobu nga xam ne lamboo na ñett muy jàmm mu yërmande barke. ñu ngi ko yëkkati. di ko teg ci loxo président Ousmane Sonko. li tax nag ñu def ko. wala ku fi ñëw ku nekk. wala moom moo la fi indi. moo tax nuyoo boobu bu ko yëkkatee. jëlee ko ci xalifa bi mi ngi koy teg ci loxo yi président Ousmane Sonko. amiin yow mu ne dana yëkkati kàddoom. waaye nag mu jugee ci ndigal. ndax Alxuraan def ne lépp lu leen yonent bi dikkee jël ko. waaye arab de ndaw lu nekk mi ngi amee darajaay ko ko yónni. mu ne yéen day ñi fi teew umpale wu leen ko. umpale wu ne. umpale leen ne. kaddu kër gii di lew na seen. kaddu kër gii di lew nañu seen kër maam Xalifatul Haaji Muhammad. kii suñu waajur di suñu sëriñ. kii seen waajur di seen sëriñ. di suñu xarit di suñu xalifa. di suñu xarit di suñu kilifa di suñu xalifa. ñëpp yëg nañ ne. ñëpp yëg nañ xam nañ ne. porte parole lu kër gi mooy ku yore baatam moom la ko dénk mooy Ahmed Aboubacar nii. ku mu waxut maa fay wax ci ndigal. mu ne fépp foo xam ne yëkkati na kaddu rek mu ne mi ngi koy yëkkati ci kaddu xali ci ndigalu xalifa bi. fu mu demul te war war dem man la fay yëg. fu mu war a dem te manu fa dem mu ne moom mii la yónni mu teewal ko fa. léegi rek de. mu ne léegi rek de. la doon recevoir ñoo xam ne. la doon recevoir ñoo xam ne. faree ci feneen. ñi ngi faree ci feneen. te mënu fa woon a teew. te moom mënu fa woon teew moom xalifa bi. mu yebal ma teew. moom la yebal mu teew recevoir ñooñu. li tax nag fii ñu ñëwee mënu ma fee teew ndax dama doyul wala dama amul. mu ne kon nag bu président Ousmane Sonko ñëwee xalifa bi tabaarakallahu jàpp waay waay mu war kaa mën a wuutu mën a recevoir ñi nga xam ne ñooy délégation bi. moo ma woo. mu ne xalifa bi moo ko woo. président Ousmane Sonko dafiy ñëw. ne ko day président Ousmane Sonko dafiy ñëw. suba la ziare. te suba la ziara bi. yaram wi métti na lool. te yaram wi métti na lool toogaayu jumaa ji yàgg tool. te xam nañ ne fan yëpp toogu. te xam nañ ne fan yëpp toogu. te yow yaay man maa man maa yow yow yaay man. mu ne ko yow yaay man maay yow. recevoiral ma sama gan. dama bëgg nag sama gan googu muy président Ousmane Sonko Cheikh Ahmed Aboubacar nga recevoiral ma ko. lépp loo fa wax man maa wax man xalifa Cheikh Ahmed Tidiane. Hmm. mu ne loolu wax ji moo mu leeral ko leer nañ. Hmm. Euh, président ñu lay wax marhaban bika. Ousmane Sonko lay wax ne yaatal na la ci kër buy kër Muhammad ak koo àndal. ak képp koo nga ak ah li nga wax noonu la. mu ne ah, li nga wax la. ndax borom keur gi moy khalifatu haj muhammad dafa wote dafa ne. dafa ne. ya bidu ya sud ya urkun wa yaa ajamun. fatu ilayya li akhdhil wirdi wa din mam khalifa dafa wote bako yalla wote lo wa daa'iyan ila allah bi idni wa sirajan muniran mu ya bidu yen ñu wex yi ya sud yen ñu ñuul yi ya urbun yen arab yi. yaa ajamun yéen làkkat yi làkkut arab ñu khalifa lan la mu ne fatu ilayya ñëw len ci man. لأخذ الورد والديني وإلى تحمل جيت الورد وإلى أخذ الديني والورد يل يل دين يونتي محمد وإجاب طريقة شيخ أحمد تجار بيقى بيقى طريقة النشار إلا يأتي أموال وأنفسكم لكي تفوزوا بالنيل فتح في العين مام خليفة تقار تبينن بيت ممن دن نقوى بنيوه لني إندالي نقول لني أمن بيري لنك أمن بيري من فاتو نيولين إلي يتمن خليفة الحاج محمد بأموال عندك سيني ألو وانفسكم اكسيني بكان ناخ مي ني جينديكو لاي القران جوجو ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه دا اجدو كوكو بغ دا يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم مام خليفه نك مون بو نين نيوي با با اندي سان الله اك سين بكان مون لي كاي تفوزو نين نين تخي نين كاني li lay li fatxi fil xëy da ngeen am li ñu tuddee fatxul akbar ca saasa. yàlla na ko yàlla defal. indi mina seyxi ma law kaani yaarifu. ñu ne ko maam Khalifa. yow bagage bi foo ko jëlee mu ne indi nekk na fi man saraf la ja moo xam ne nii mubta xabaru mubtada muñ jiital la mu ne indi nekk na fi man mi ne cheikh tuddee cheikh Ahmad Tijaan maa loo xam ne law kaana bu nekkoon yaarifu di ko xam ahlul bilaadi réew yëpp mboolem les les les les cinq continents xaw ma les six continents mu ne boobaa ah cinq continents mu ne bu ñu xamoon li ma am jëlee ko Cheikh Ahmed Tidiane yi mu ne ñoom ñëpp danañ ma dikkal duuna tax mii nii kenn du werante. kon nag woote boobu boo wuyu si ak ñi nga àndal. waaw maam Khalifa woote woote boobu président Ousmane Sonko nga wuyu si ak délégation bu tedd bi nga àndal. rawatina nag tabaarakallaahu suñu mbokk yi sant Mbàkke yaxe ñoo moom ziyaara bi. diggante ak moom ci xam-xam bari na lool. te liñ dox si diggante diggante Mbàkke ñes si bari na lool. buñ ko doon wax rek jël na waxtu. buñ ko doon wax jël na waxtu. kon bisimilah kon mi ngi lay wax bisimilah sa kër. xalifa bi mu ne. xalifa bi mu ne. mi ngi lay tatagal. mi ngi lay tatagal. mi ngi yaatalal loxo. mi ngi lay yaatalal loxo. mu ngi lay ñaanal yàlla. mi ngi lay ñaanal yàlla. yal na yàlla nangu kër gi nag. mu ne kër gi nag. képp ku mës a wut réew mi. képp ku mës wut réew mi. li mm-hmm. nga xam ne loolu la ko njaboot gi waxee. li nga xam ne noonu laa ko jiitale woon ci njëlbeen li. dégg nañ la fi wala fekk nañ la mu ne déplacé nga ñëw fii sukk ci roon xalifatul xaaji Muhammad. te inna allaha la yughayyiru yàlla nee na bu ma jëlee ab mbaax def ko ci am nit wala ab ñoñ mu ne ko buñ ko delloowut ma ko jël. te li fi neewoon démb mo fi nek tay mune budu dar sax. suñu gan nga. suñu gan nga. ndax Muhammad sallallahu alaihi wasallam mo wax ci hadith bu wér man yumin billahi wal yawmil akhir fa dayfahu. tay kep ko xamne gem nga yalla lolou ñu bari ñu koy wax ci gis bis ci mu ne ku gëm ñaar yoyu waa ne gan terol ko way jam la ñuy ñaan de mu ne ñun day lew nañu seen jàmm la ñuy ñaan waaye bo fi jógoon tek jam la sax waaye fi bo fu jógee woon dégg sax jam la suñu responsabilité kon nag ñu ngi ñaan jam kon ñi ngi ñaan jam yalla ñu ko yàlla defal jàmm ci réew mi mu ne yàlla yàlla def jàmm ci réew mi jàmm ci réew mi nag mu ne jàmm ci réew mi nag mooy waxtaanee réew mu ne mooy waxtaanee réew mi. sëriñ si nañ waxtaanee réew mi. mu ne nañ waxtaanee réew mi. politiciens yi nañ waxtaanee réew mi. nañ waxtaanee réew mi. dignitaires réew nañ mu ne dignitaires réew mi nañ waxtaanee réew. wax na ko keroog de. mu ne wax na ko keroog de. Sénégal gaal la. mu ne Sénégal gaal la. ñun ñëpp ci biir mu ne ñu ngi dugg ci biir gaal bi ak suñuy bagages. gaal gaal ci biir njëkk mi di gi mi ci biir géej gi di daw. ñaan yàlla gaal gi àgg fa. mu ne dañuy ñaan yàlla gaal gi mucc ba teer fan nañ ko bëggee. loolu la mu ne loolu la ñuy ñaan. suñ bés bii nag. mu ne suñ bés bii di ziare law dañu seet. ku dul jullit sax. mu ne ku dul jullit sax. bu ñëwee. bu ñëwee. na ci ziare bi laa ñëw. na ci ziare bi laa ñëw. danañ wax ak moom. mu ne ko recevoir wax ak moom. tegginal ko. tegginal ko. teral ko teral ko. loolu loolu lañ la ñu lislaam sant la ñu yonent yàlla Muhammad wax. mu ne ñun nag fii lew nañu seen njaaxaanaay tëddee. benn média jóg ne ñeseen nii la ñeseen. mu ne bu fi benn média jóg. Hmm. di ñu farale fenn. naan lii wala lii ñeseen jaaxaanaay leen tëddee ku ñëw ñu wax ak yow recevoir la ñaanal la yàlla. mosu ñoo dañ nag di di te mu nag loolu ca aj daat ya la ba ci abaaya suñu maam yi suñu baay yi mosu ñoo dañ di tëddee ci wàllu politique. mosuñoo impliqué kenn ci li ñu nekk. mosuñoo impliqué kenn ci lu ñu nekk. fu neex. fu ay neex. nga wuti fa. nga wuti fa waay. ndax 100 pour cent ndax mu ne 100 pour cent. mu ne amul ku ko am. lu alquran wax. lan la alquran wax. walaw shaa rabbuka la fi l-ardi kulluhum. yàlla mu ne bu ma neexoon ñëpp danañ ma gëm. boo leen ku nekk ci kaw suuf. ma damaa la bind. yàlla nag bu am bu joxewul 100 pour cent. waaw yàlla nag bu amul 100 pour cent am na ñu ko weddi ñu bëree bëree bëree bëri. kon ñu xam ne du ko jox kenn. waaye kon nag gannaaw yàlla joxul boppam 100 pour cent du ko jox kenn. kon nañ mu ne kon nañ góorgóorlu. ñu ngi ñaan yàlla. ñu ngi ñaan yàlla. ñëw ngeen ci jàmm. ñëw ngeen ci jàmm. yàlla ngeen dellu si jàmm. yàlla ngeen dellu si jàmm. li ñu digle ci ziare. li ñu déglu digle ci ziare bi nga xam ne ku déplacé ñëw ziare fii. ak ziare sa mbokkum jullit. ziare sa mbokkum jullit ak xadiis yonent bi wax digle yëpp yal nañu mu ne liñ ci digle yëpp yal na yàlla defal ñu ko ñu ñëpp yal na yàlla taxaw yal na yàlla taxawu taxawu suñu réew def ci barke def ci àndoo def ci déggoo def ci waxtaan ak jub ak maandu ci barke yonte yàlla Muhammad yal na ko yàlla defal ñuy gërëm ñëpp am na kaddu yu ñu fi defar ñu ngi nii Seydina Ousmane ñaanal nga ñaanal ba gën a yegg këram. mu gisante mu suñu aay war fa jël. waaw Cheikh Cheikh kay Cheikh Cheikh waaw wàpp seedi kado yi Cheikh Cheikh ñu def ko dijant moom micro bi jaar voilà fii andi ma xolo andi ma xolo mooy PM ci dem waaw li nga xam ne daal danaa ko santaane mu ne li nga xam ne daal da ko yokk ci wax ji santaane ko président Ousmane Sonko di la ko digal gàtt na xat na mu ne gàtt na xat na waaye fii alhaji Abdoulaye Niass tëdd. waaye fii maam alhaji Abdoulaye Niass tëdd. les grands. xalifatul alhaji moom. raawam bu tedd ba borom xam-xam bu mag ba tëdd fa. lu dalee Medina ba Niassène tëdd. lu tëddee lu dalee Niassène ba Medina bi ay doomi alhaji Abdoulaye Niass ak ay sëtam tëdd fa. ku fi mës a ñëw de. mu ne képp ku fi mës a ñëw di sàkku li ngay sàkku. Omar yebal nañu dañ la fay yebal ne la demal foofu si alhaji Abdoulaye Niass nga ñaan fa soxla. mu ne mi ngi la koy wax nga dem foofu ba pare ziare moom alhaji Abdoulaye Niass kon ngeen mu ne balaa muy ñaan rek président Ousmane mu dafa fàtte mottali délégation bi. mu ne ci wetam. mooy sëñ Xaadim Mbacke. mooy ci délégation bi. mu keneen moom imam Dramé moom tabaarkalla ñu koy singul baax a baax. mu ne na ci délégation ci délégation bi mu Omar moom ci gerte gi dëkk. Amath Pape Pape Ameth. Cheikh da koo defaloon ay cadeau. waaw am na micro. Pape Ameth. da koo defaloon ay cadeau. léegi Cheikh Papaay Cheikh. mooy joxe cadeau yi ñuy jox suñu ma soog. lépp lépp may ko tuuti mu foto. may ko tuuti sëñ bi. sëñ bi sëñ bi mayal suñu équipe. ma toog ma dafa xale yi laa ko di appuus gi. waaw mayal suñu équipe comme mu ko toog mu jël bâche yi. xam nga xam nga bu baax moo tax ma ne la mayal suñu équipe comme mu jël ndax su ma ko fee waaw toog nañ affaire yi ñaar waaw macha allah xam nga man. bisimilah am na xam. Ah, waaw toog leen ci ñoom toog leen ci ñoom. toog leen ci ñoom.

ay xale yoo xam ne treize ans lañ am mokkal alquran dama ne yow tëjal ma ñu koy ñaanal yàlla ñun bëgg ñoo fay. macha allah macha allah c' est Thank you. voilà mbokk yi ñun ñoo ko gisandoo président Ousmane Sonko moo ñu woon tey fii ci Léona Niassène ñëw def si ziaram comme ni ko waxee woon dégg ngeen discours bi nga xamante ne moom def na ko moom président dégg ngeen également discours bi nga xamante ne porte parole bu Léona Niassène def na ko ko dalal ko teral ko léegi nag li des mooy génn def ziaram dellu ca Dakar ñu ñaan rek ziar bi ak ñëpp ni ñu ko xamante ne ñu ko bëgg suñu borom yombalal ñu ko ba ñu ko ni ñu ko bëggee donte ci biti li fi nekk ci mbooloo ci ay ndaw ñi nga xamante ne tey jii nii ñu ngi xaar président Ousmane Sonko ngir saakonte ak moom weccante ak na loo xamante ne xanaa suñu borom dafa ñu xéewal ak sutura ñuy génn xale yi encadré lépp tegu ci yoon ñu delluwaat ca Dakar waaye li ñu leen mën a xamal daal mooy kom moom ni mu ko waxee wootewul mbooloo waaye yàlla mooy ma te yàlla moo ko may moom président Ousmane Sonko képp koo xamante ne dem na fa tey jii fii ci réew mi ak sax bitim réew bu ko ko yàlla defaloon tey jii nii dinañ gis ne képp koo xamante ne Sénégal ñor na la dina génn tatagal ko saafonte ak moom loolu mooy li fi nekk duñu coupé live bi dañuy ànd Anda ikut équipe bi nga ñoo wan leen li nga xamante ne am ci Thank you. mbokk ñun ko gisandoo président Ousmane Sonko mo ñu won fi ci dañu Niassène ñu ne dañuy and ak yeen mbolo mi da bari dañoo buxonté ba génn ngir dellu ci tok fi wax leen li nga xamantene ne xew amana sax jarul ñukoy wax parce que gisal ngeen ko seen bop waye li dal moy li nga xamantene ne am fi ci dañu Niassène gannaaw bi nga xamantene ki nga xamne ne porte parole bi le du Khalif de Léona Niassène tatagal nako, téré nako wax ko li nga xamantene mom la ko jox ci ay kàddu mu yobante xale bi lépp nek ci teranga lépp nek ci ak tedd ga comme xadaratul juma bi mi ngi tàmbali fi ci lew nañu sen mom président Ousmane Sonko momit mu gadal gatal discoursam waye waaye lim xamle rek moy julit la talibé la fu mu dem ci këru diine du fa politique waye fépp foo xamantene ci këru diine la amna droit dem fa dana fa dem bu ziar yoté mu ziyaare lolu këru diine yi la budé fo xamantene juma la fu doomu adama ta ngay julit bëgg a comme ni ko alxuraan waxee tam wax ko moom président Ousmane Sonko këruk yàlla moom këruk yàlla la amul kenn koo xamante ne mën nga tere benn doomu aadama mu jullit ji fa l'essentiel mooy mu nekk jullit képp moom la fi président Ousmane Sonko wax kon ñu jox leen dig daje incha allah ci kanam bu dee am na yeneen événement yoo xamante ne jar nañu dégtal leen ko waaye daal li ngeen gis fii nii ci Léona Niassène mooy li nga xamante ne moo fi am dama génn pour mën leen a wax lii nga xamante ne moo nekk fii en ce ci lew nañu seen parce que mbooloo mi dafa bari torop torop torop lépp ñëw pour ànd le président Ousmane Sonko. léegi nag soo soo seen gaare ca kanam ca kanam. waaw. nga moom kay tey dañ maa def chauffeur te waru moo nekk chauffeur. <laughs> voilà merci beaucoup. moom noonu lay def jeex na. Oh, non benn ma nga ca biir kon merci beaucoup. waaw gars yi kon ñu def noonu jërë ngeen jëf.